nuyoo di leen dalalaat ak jàmm seen chaîne bii di leader tv di wax ni bu leen fàtte abonné ñu ñëw ak yéen si wàllu information bi tey ñu ngi ki si wàllu mercato bi njaay ak jëndum jour donte championnat yi commencé na mais club yi ñoo ngay continuer di jënd ay jour ñii jaayaat moom nag tey ñoo ngi jëm ak yéen si beneen franco sénégalais kii nag mi ngi tudd Issa Diop moom Issa Diop mii nag ak franco sénégalais la moom mi boole na ñetti nationalité yi nga xam ne xale bi am na am na nationalité Maroc am na nationalité Sénégal mais am na nationalité France googee nga xam ne foofu la juddoo si dëkk bu ñuy wax Toulouse moom mii nag ay atam ñoo ngi toll si ñaar fukki at ak juróom taayam mi ngi toll si 1 mètre 94 moom mii poste bi nga xam ne loolu lay moom défenseur la mais pied bi nga xam ne moo gën a graw pied am moo gën a graw na si diggante club boobee nga xam ne foofu la nekkoon saison bii ñu génne di nga xam ne foofu la jëm di moom nag contrat

qualifié si coupe du monde bi pourtant Maroc mi ngi bokk poule groupe F la bokk Maroc gii mi ngi bokk poule équipe boobee di Croatie équipe boobee di Belgique ak équipe boobe di Canada Maroc gii poul boobee la bokk poule F boobee la bokk ñu leen di wax ne bu leen fàtte abonné ba beneen ak yeneen i information